أعوذ بالله الشام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جينا بسنت بروم سبحانه وتعالى دجي سي سانغ سانغ محمد عليه الصلاه والسلام بلغي نيغي سون نيغي توبا تي دك سون مام شي مدو بامبا خادم رسول دي واجا 18 نينا لي نون وا الفيزيون ميديا بروب بو نيك نان فا دوغ كلو خامت ني خاونا تي ماغال ان شاء الله ربي تاي نيغ فان ريزيدنس احمد بامبا خادم رسول تيغا خامتني موم لا سون بريزيدنت لا ريبوبليك اك اي مينيستيرام دالون في تي ريزيدنس احمد بامبا خادم رسول ني واختان اك كيغا خامتني مو يور شامبري جيتي كيغا خامتني جيت وار وار wàllu berne yi ñoonu lañ fas yéene waxtaanee incha allah rabi suñu paree bu ñu jógee fii demaat yeneen bërëb incha allah rabi. aouzu billahi shami alim min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulilah ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala du julli ci sang-sang muy sayyidina muhammad alayhi salaatu wa salaam euh, ñu ngi fii ba léegi ci Touba Mbacke ci dëkk sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di waajal 18 safar gi muy am dimanche incha allahu rabbi sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul woote ko mu ne nañ ko santale borom subhanahu wa taala nan lañ ko santale borom subhanahu wa taala jàng alxuraan ak ay xasaayit def ay bernde moom ci lañ nekk nii ba léegi waaye tey ci suba dañoo demoon kër Mustaxim Mbacke bañ jógee kër Sëñ Mustaxim Mbacke ñu ngi ñëwaat fii ci résidence sul maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasoul fekk fi kenn ci nga xamante ni bokk na suñu délégué pour mu yor résidence moom la ñuy fas yéene nuyu waxtaan moom rek incha allah sang bi ziyaar nañ la billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb sëriñ touba ñu ngi ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal njabootug sëriñ touba gépp di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullah Baye Serigne Ndiaye laa tudd fan ma Baye Serigne Ndiaye waaw ma gis ne yow lañ jox yow ya bokk nga suñu délégué pour ñëw résidence bi nan nga yoré résidence bi waaw <clears throat> résidence bi de ndigal ci lañ ko yoré moy eh, ginaaw bi nga xamé né serigne muntaxa basiru mi ngi am gan gu mi sentu muy président Macky Sall mu joxoon sëñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Khader ndigal eh, sëriñ Basiru tamit woo sëriñ Mustahin moom sëriñ Moussa Nawel dénkaat ko ndigal ndigal loolee mu am ay jëwrin ci biir jëwrin yoo xam sëriñ Xaadim Mbàkke mooy suñu jëwrin mom day bolé ñaari kër yépp bi ñi ñëw fi ñun ñaar lañ kenn ki sërëb sëriñ Muntaxa Basiru la kenn ki bay sëriñ jaari mi di wax ak yeen la taalibe sëriñ Muntaxa dañ ñu fee indi ngir lan muy président bi nga xam day ñëw war a ànd ak ay ministère am ak député ak ñeneen ñi nga ay ministre de conseil ñi aju ci moom ci looloo tax ñun ñu ñëw pour yoral ko fii nii ci yorin wu mucc ci ayib ndax boo gisee mu ko nii sax moy da dag ci da jël ci bopam eh, moy fonk gum len fonk ak teral gum len teral motax mu jël ci bopam joxe ndax ki di bi ki di talib sëñ bi ñoñu war nañu mëna jomba def lo xamne doyna war ci lool nak ah, lañ ñu fi indé waye nak ñu and ak protocole bu président eh, nga xamne mom da naka mën na ne le moo ñu ci liggéey bi ndax biñ ñëwé kérok alarba mom lañ andal mu ñu top ko par nek par nek par sal par sal muy bind di xol lu normal lu normal lepp mu xol ko bind lepp ci kayit ñu bind lepp ci kayit mu am suñu numéro di ñu wax diw sangam moy nek nek sangam numéro sangam di non lañ koy topo ba résidence bepp jeex encore ñu topat ci tamit lepp lu ñoo nga nek ci bir neeg yo soxla ñu dem déclarer ko ñeneen amna benen daayira bu nekkat ci bir kër gi ñu leen wax wilaya ñom ñoo yor wàllu dënale bi ñoo war walu trangé yeeg yoy ñom ñoko yor waaye ñun ñoo yor caabi yi mm, ku ci am problème ko xam ne sa salle bi am wala lu mën di am problème bu mën di am daal ñun lañ koy déclaré bu ñu ko déclaré ñu yéegal ko ci suñuy kilifa su soobee yàlla dina day daal di mbir mi day daal saafara bu dee ci wàllum dana lay euh, lu ñu ci wax ñun nit ñu waxaat ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore mbir ma moom day saafara waaye ak sant yàlla lëgg ci am ndax résidence bi moom daa bokk ci yoo xam ne depuis mu pare ak léegi li muy dalal ci ay nit day bëri. ba tax na dafa yombalal sëñ bi liggéey bi bu baax a baax a baax a baax a baax waaye lii nag ñun ak cant lañ ko jàppe bu baax ndax kenn kum ci doon ci ñun ñaar ñi ñu fi yabal fii ci résidence bi pour ñu téyel ko lii yaa ngi danga bàyyi sa kër bàyyi beneen liggéey ngir ñëw liggéeyal fi sëñ bi rek kese waaw. résidence bi kañ lañ ko fi defar. non mën nag jàpp ma date bi mais xam naa ne yàgg na ma xam naa ne moom minimum moom mu gën ngaa néew. moom fi mu toll nii war naa def fukki at ak juróom wala war mu jege ko ndax biñ koy commencé yaakaar ne Sëñ Saaliw mi ngi fi woon. mais de gis ni ga jiite lu toll ni résidence pour accueillir ñi nga xamante ñoo nekk ci présidentielle bi loolu noo koy dundee ak euh, président ak lu jëm ci wàllu gouvernement nu mu garaawee. waaw ku mel Baye Serigne Ndiaye moom nga xam c'est la première fois la koy doog di def loolu it mën naa metti mën naa bañ a metti ndax ñun tàggat gi ñu tàggat moo raw dalal président waxantuma la ay député ak ministère ndax sëñ bi dañu tagat ci ab yar yar ñu ci daara ja ñu def ak mom wenn 200 cent jàng fa jangale fa euh, muñ lu ne daj lu ne nak ba gis ndariñ la xey gis ndariñ la lola comme xass nek ci yow nga mëna muñ lu ne euh, bo dikke ci yu melni yar ba la sëñ bi yaron bam defon ci yow su fekke lola mi ngi ci yow ba rek tra maam da ngay continuer liggéey lu ayef la ci yow ki la wo yoni la tam leer na nañ ne buñ ko xooloon ci martaba ba mën naa am sut ba koka dang koy muñ ndax dang koy liggéey Serigne Touba ndax do japp na ki mo la yoon way dangay japp na serigne bee la yoon non lañ koy dundé ñoom it nag ñu ñun ñuy gar ñu neex dalal ndax wax deug yalla kenn ku ci nekk da nga and ak ko xamne ne daanaka say service mo la koy doxal daanaka li ñuy soxla ci ñun rek moy li nga xamne ñom seen nit ñi ñi andal mënuñ leen mënuluñ leen ko lool rek lañuy soxla ci ñun moo tax it mbir mi dana metti waaye du metti ndax na ci metti moy 6 heures de matin ngay juk bala ngaa tëddaat tamit ñoom it dañoo tëdd muy ay trois heures te ñoom heure bu ne la ñuy dem heure bu ne la ñuy ñëw ndax dañuy am ay xame ci dëkk bi di leen seet di dikk waaye ñoom fee tëdduñ moom yow day doo mën a tëdd woon waaw waaw looloo cay metti waaye ñun dañ koy def liggéeyal sëñ bi moo tax day mujj neex ci ñun. résidence bi day am ay daara yi fi ñëw wala pour pour kii rek la gouvernement bi kese la. waaw résidence bi moo avant président di ñëw nii. day ay daayira yoo xam ne léegi dañ fi faral di jot ndax depuis première safar ba léegi nii. am nañu fii ñëw di fi fréquenté moo xam ay daayira lañ moo xam ay délégation parce que délégation yi ñëw kër sëñ Muntaxa euh, bu fekkee dañoo xaw a nekk mbooloo bu takku dañ leen di détourné dañ leen indi fii nii moo tax du ñu du ne ay daayira kese fi ñëw mais ay délégation yeneen ay tarixa ak yeneen tarixa yi ci des sax dañ leen indi fii ndax yaakaar naa sax yaakaar naa bu président gani président bu ñu demee ñeneen ñi war a ñëwaat ñoom ñoom ñooy tarixa yee yooyu waaye ñun moom li fi di suñu liggéey ñun mooy bu gan président yi demee rek ñun dañuy demaale maam tey jii ci ngoon nii bu ñoom ñëpp saa suñ ma delloo seen i caabi rek ma dem delloo ji caabi man it daal di nekk dem kër sëñ ba waaw dem kër sëñ ba nekkaat ci beneen liggéey. Mhm. lan ngay mën a wax suñu maam Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul pour ñu tëjal. waaw li ñu la ciy wax de moom mooy euh, li nga gisal sa bopp ñëpp gis ko ñun ñëpp ñu teg ci bët mhm. ndax lii moom ci àdduna kenn ko fi am. Mhm. ci àdduna gépp daaj waxuma la Sénégal waaye kenn na ko fi am nga mën a woote ab bis. ñëpp dag seen liggéey ñen ñi dag ñen ñi jël avion ñi jël saxar lu waaye war war ko ngir ñew fekke téwé li fi rek la am amul feneen nak ndax su dee lu mel ni ki nga xamni ke bok ci ponki farata yi bo xolé euh, dem bi dafa am limite ci rew mu man di doon am limite buñ la may mais fi may ñu ñu kenn limite te li nit ñi di bari bari bari bari bari ci kàttan ak suñu borom danañ leen teral danañ leen tatagal li sëñ bi digle ci ñun danañ ko def ci ñoom boole kook nag wàcc suñuy lal jox leen boole kook lu ñuy def lu ñu def mu neex ñu bañ na ku euh, ki échec ci màggal gi mooy ki am sa kër te amoo gan moom kooku moom moo jàpp ne moo échec ci màggal gi loolu nag absurdité bu mu indaale ndax lii bi mu koy bi mu koy wax booba da day dem te la muy la muy wuti ji da ko leer nañ na teg na ko ci loxoom ba pare waaye maa ngi koy defi li ngay wuti liñ la dig mu leer la jot nga ci ba pare waaye nag jëfagoo ko dafa wutanteeg li nga xam ne teg ko ci sa loxo ba pare di ko def sëñ bi lii euh, bis bii nii mooy bi muy dem ci bi mu ñëwee nag ci la wax na bis booba nañ ma koy sant la yàlla moom waxul nañ sant kenn waaye yàlla la wax yàlla mi nga xam ne ñu ñëpp moo ñu boole jaboote moom moo ñu ñëpp moo ñu boole bind moom la ñu sant la moo tax kenn du génn bépp diine rek boo xam ne buñ toppee sa yónnante yàllaa ko yónni woon dugg nga ci biir sant gi motax tax ñëpp nga fi gis amul kenn ko fi do baye chrétiens yi sax ñu ci biir dëkk bi yeufar yi sax da nga fi gis ñen ci biir dëkk bi waye ñoomi lola mo moo di dimbali ba ñew ci liñ nekk ñun ni waaw di len sant di len gëreem rek di di wax ne eh, lo ngeen ni luñu tele nak <laughs> waye nak eh, sant yalla magal gi mom moy lo xamne lu fi waaye sant nit tam man ko te defu ko rek day mel na rek daal liggéey bi ñoru ko dëgg-dëgg te lii ngeen di def nii daa bokk ci li nga xam ne day yaatal ba ñu xamut woon xam ndax man maa jàpp na Sëñ Tuubaa moom ku ko xam ku ne topp ko da ko gëm da ko topp da nga ko bëgg te it loolu mooy jëriñ ab doomu aadama ci suuf baax na jërë ngeen def ñu ngi leen sant di leen gërëm Aïcha mi ngi noonu ñu ngi woon ci résidence Amadou Bamba Khadim Rassoul doon wax ak ki nga xamante moo yor lépp loo xamante ni képp ko xamante ni euh, njiitu euh, yaa ngi bokk si njiitu réew mi rek muy président di ministre ak gan ko xamante ni am nga am nga dara ci réew mi rek moom moo lay gat ganale moom moo lay euh, gate daal ba keroog ngay ñibbi dégg ngeen lu mu wax nee fekk président mi ngi fi fekk président tëddul du tëdd bu yeewoo day yeew bu tëddee de bu tëddee lay doog a tëdd kon mi nga xamante ni yor na liggéey boo xamante liggéey boo xamante